wa an alsaxaabati ajmain wa an altaabicina wa taabicihim bi ixsaanin ila yowm ddin mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu am mbégte bu baax a baax del siwaat si sunu émission bi nga xam ne ñoo àddina bi yëpp a ko bokk di ñaan sunu borom mu nangul ñu nangul leen euh, waaye tey balaa may dugg ci waxtaan wi feeñal rekk sama mbégte si bésu démb bi nga xam ne bésu alquran la ci mbuur nga xam ne li ko dagg Joal campement mbuur ay jàngikati alxuraan yu mag a mag ñu amal bés boobu nga xam ne bésu alquran la ci njiitu suñu frère yu baax yooyu Seydina Omar al-Shaa'ir al-Adib al-Arib al-Najib al-Nabil ma sha allah asalullah an yubarika fiihi wa fi umrihi wa an yajcalahu dawman zuxran lil islam wal muslimin Euh, ak xaritam yu baax yooyu nga xam ne ay jàngkat lañ Oustaz Coulibaly wa gayruhum min al asatida al xafla al quraniya al di félicité bu baax a baax kilifa yi nga xam ne seen njaboot yi yàlla def na ñoo jël ndam li wax dëgg yàlla démb ku fa teew doon nga am jafeñ-jafeñ pour wax kan mooy gañe wax dëgg yàlla man loolu moo ma moo ma gën a neex ci bés bi xale yi ku jàng rek da nga naan kii moo war a gañe euh, maa ngi fàttaliku xale bu jigéen bi njëkk a jàng maa ngi wax oustaz bi ma dendal ma ne ko ah kii de gars yi am nañ problème parce que kii ku ko fi dindi moom du yomb mu wàcc keneen ñëw yéeg ma ne ah kii moom mooy gañe noonu lañ ko toppee ba yëf yee jeex loolu nag li waaja waxoon suñu mbokkum séeréer ma nee na halpulaar yi am nañ problème parce que léegi séeréer yi dañuy mokkal alxuraan effectivement loolu mooy li nga xam ne mbégte la ci Sénégal tey mbooleem giir yi xabaayil yi fi nekk usar yi ñoom ñëpp yatasaabaquuna ila xifzi kitaabillah xifzan wa tajwidan loolu moom foo dem ci réew mi tey loolu ngay gis te bésu mbuur bi dëmb wane na ko ay xale yu tuuti ñoo xam ne ku jàng rek danga nga naan kii moo dàq jàng te xale yu tuuti lañ demaguñu fenn man su may am yaakaar ci réew mi ñu mel ni ñoo tax ba ñuy jàng risaala dañ ñoo jàngaloon ne inna tacliima atfaal almuslimina kitaab allah yutfiu gadab allah jàngal doomi jullit yi nga li leen jàngal téere yàlla bi dafa bokk ci liy fay merum yàlla léeg yàlla mer am lum nar a jëflanteeg waa réew ma gis benn xale buy jàng alxuraan rekk mu teggi meram wala mu mere ñu ba mbugalam nar a wàcc mu gis xale buy jàng alquran rek mu far jéggal ñu mu far teggi meram ci ñun bés boobu démb bi xale yi di jàng loolu laa doon teewlu ma ne laalla allah an yarhamana wa an yaxfira lana wa an yatuuba alayna wa an yasturana bi hadihi alqiraat almubarakat min hadihi alashbal walbaraacim annachia loolu démb loolu lañ fa yëg di félicité nag ñi taxawu bés bi yépp waa mbuur yëpp waa mbuur yëpp wax dëgg yàlla euh, léeg-léeg nit ñi dañuy foog ne mbuur moom ci yeneen lañ leen gën a siiwee te wallahi mbuur lu nekk ngi biir mbuur xuffaas yaa ngi mbuur xubbaat yaa ngi mbuur shuara yaa ngi mbuur zuhaat yaa ngi mbuur dégg nga mu fakkiru na yaa ngi mbuur waaye nag des fois dëkk day am loo xam ne dafay fës ba ñaare day mëdd yenn yi moo tax yu mel ni war nañ di ko gën a euh, feeñal pour nit ñi xam ne ñii kat euh, kenn rawu leen ci li ñuy soxla ci diine tey kon di leen félicité bu baax a baax di félicité bu baax sunu jur wi nga xam ne mu uuf xale yi tette leen alxaaji Ibrahima Ciss di ñaan yàlla mu barkeel dundam ak njabootam yépp ak mboolem jullit yi nga xam ne teew nañu foofu ci bés boobu di si jiital sunu xarit sunu frère imaam Ahmad euh, Moustapha Sall bi nga xam ne imaamun wa macha allah rajul mubaarak waaw rajul mubaarak nit ku yàlla barkeel la ci diine ci lépp dundam ak léppam lislaam la ak dimbale jaami yàlla yi kon bés boobu euh, li ci gën a rafet mooy taxawaay bi ñu def ne xale bi nga xam ne moo jël pee ci concours bi année bii di ñëw gàddul nañ ko njàngam lépp lu ci aju ñoo koy fay loolu encouragement la loolu dimbale nit ñi la dimbale seeni way jur la parce que bari na tey ku njàngam yàqu li ko waral mooy ñàkk moyen la muy njàngum diine muy njàngum àddina kon léeg ñu mel noonu gestu leen di leen jàppale di leen soutenir ah loolu day am solo xale yooyu mën nañ jàng fu nekk mën nañ jàng fu nekk wallahi concours yi am grand théâtre fii nii weeru koor bu jot xale yooyu bu ñu si bokkoon mën nañu am ndam dëgg la xëy na nag grand théâtre nattukaay yi métti na waaye xale yooyu mën mën nañu représenter Mbour ci lu wér a wér kon léegi maa ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla mu gën a barkeel liggéey boobu noonu di ñaan yàlla at mu jot muy gën di am doole te it doon na baax média yi génnee ko damay wax toujours ne malheureusement des fois da ngay foog ne xale yi euh, ci fecc ak foo rek ci la ñu nekk te ndeysaan xale yi fecc ak fo ni ñu leen di wane dañ ko dul wane yeneen xale yi mais yeneen xale ngi fi di def leneen moo tax ñi nga xam ne dañuy amal ay jotaay yoo xam ne di jàngal xale yi wëy di jàngal xale yi fecc la nañ ñu dimbale boole ci xale yi nga xam ne alxuraan rek la ñu mën wallahi xale yu juddoogul dégg nga feraguñu sax tey ñooy wane ci alquran loo xam ne sagu Sénégal lañ kon nañ xam ne Sénégal xale yi ñeneen xale la ngi fi xëy na dañ leen a waneegul te dañ leen a war a wane su boobaa dinañ xam ne Sénégal lu lu ngi ci biir te lu ko mën a aar mu ngi ci biir loolu daal moom mbégte la mu nekkoon sama xol bi démb ba léegi maa ngi yëg bànneexu bés boobu noonu tey mënuma ko woon ñàkk ubbee te xam naa ne su ma ci jaaree jullit yi nga xam ne bëgg nañ alquran bëgg nañ lislaam bu nu ko yëgee dinañ ci am mbégte bu baax a baax a baax waaye sunu jigéen boobu nga xam ne euh, moom la ñu àndal démb Seyda Hafsa euh, wax dëgg yàlla moom tamit mbégte rek la fa jëlee parce que moom soo ko bëggee daaneel rek tudd jaaral ci alquranul karim boo ko bëggee daaneel rek tuddal alquranul karim sunu soppe bële Seyda Binta Thiam bi nga xam ne tamit euh, tagg yonent bi rek la ko nit ñi xamee taxawaayam ci bés bi nit ñëpp rafetlu nañu ko kon dañuy ñaan yàlla rek bés boobu yàlla nay gën di jëm ci kanam dégg nga maam di gën di jëm ci kanam alxuraan di am ndam loolu mooy aar Sénégal mooy tax yenn musiba yi wàcc yàlla mën nañu ko fànqal léeg-léeg réew mi nar a dugg ci musiba waaye xamuñu ne alxuraan moo ñuy musal moo ñuy aar kon nañ ko gën a fonk gën koo gën ko dooleel incha allah yàlla dinañu defal teraanga àddina defal ñu teraanga àllaaxira mbokki jullit yi weer wi ñu nekk nag. tey ci laa bëgg a wax tuuti ñu ngi nekk ci weeru Shaaban Shaaban dafa bokkul ak weer yi weer la woo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi dafa am lu mu ci wax bokk na ci lim ci wax mooy mooy weer la woo xam ne ñu bari ci nit ñi dañ koo sàgganee ñu bari ci nit ñi dañ koo sàgganee maanaam dayo bi weer wi am xamuñu ko joxuñu ko ko léeg sax nit ñi rajab la ñuy gën a fonk léeg-léeg ñu naan la isra wal mi'raj ci la amoon ci lañ wàccee woon julli loolu la ñuy wax ci rajab mais chaban moom daanaka bu ñëwee nit ñu baree bari duñu ko duñu ko jox benn yitte loolu nag yonent bi moo ko wax te mu ne moo ne de weer wi dafa am ngëneel yu ci nekk yoo xam ne bokkul ak beneen weer bokkul ak beneen weer loolu nag moom laa bëgg a bàyyiloo xel jullit yi tey xëy na ku xamul nga xamee ci ne weer wi ñu nekk du weeru caaxaan maanaam du weeru ordinaire dafa am yeneen yu ci yàlla dëxëñ yoo xam ne defu ko ci yeneen weer yi euh, damay wax ne li yeneen bi wax sallallahu alayhi wa ne weer wi ñu si bëri dañ ciy sàggan loolu sénégalais yi xam nañ ko cest à sàggante gi mooy dañ ciy bëril caaxaan dañ ciy bëril fo niñ ci waroon a jaamoo yàlla dëgg-dëgg duñ ko def ñu baree bari dañuy profiter balaa koor gi di ñëw ñu fo moo tax tey euh, weekend yi ñuy dugg daanaka boîte yi ni muy feesee ak bérébu fowukaay yi bérébu mooyukaay yàlla yi ni muy feesee dafay jéggi dayo loolu nag la yonent bi doon wax parce que ñu bëri dañ naan nañ gaaw parce que fii bu weeru koor bi duggee dootuñ mën a tëgg dootuñ mën a dem boîte kon li ci des nañu gaaw rek profiter ci kii bi Shaabaan bi muy weeru baraxlu du ñu noppalu guddeeg bëccëg dañuy fo dañuy caaxaan dañuy moy loolu moom la ñu bi di bàyyiloo xel te weer wi wartu demee noonu yonent bi sallallahu alayhi nee na weeru Shaabaan shahrun turfau fihi al a'mal waaw jëfi jaam yi jëfi jaam yi jëf yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koy gaaral ci kanam borom bi te loolu ci weeru Sha'ban lay am borom xam-xam yi nag am nañ ci déggin am na ñu ne hadis ba wax ne bésu lundi bu jot ak jeudi suñu jëf yi dañ koy gaaral ci suñu borom yonent bi nee na looloo tax muy woor lëndi ak jeudi bëgg bu ñuy gaaral jëfi jaam yi bu ñuy gaaral jëfam ci borom bi fekk moom mu ngi woor ñu ne loolu am na ñu ne léegi nag weeru saabaan moom amul lundi amul jeudi bés bu nekk la la jëf yi di dem waaw loo def rek ci saa si rek lay yéeg ci borom bi te borom bi da koy nangu ci lu baax amul xaar ba lundi amul xaar ba jeudi booy jëf lu baax booy pare rek affaire bi dem na directement am ñu ne déedéet liñ ci namm mooy at mi mbooleem jëf yi jaam bi doon jëf ci weeru shaabaan bi ci lañ koy dajale ñoom ñëpp jëf yëpp ñu dajale ko gaaral ko suñu borom yonent bi nee na looloo tax dama bëgg bu ñuy gaaral jëfi jaam yi ci weeru shaabaan fekk man sama jëf buñ koy gaaral maa ngi woor loolu moo tax amut wenn weer woo xam ne yonent bi doon na ci bari lu muy woor lu toll ni weeru shaabaan bu dul wooru farata wooru farata moom weeru koor la mais weeru naafi wooru la laa wax naafi la amul wenn weer woo xam ne yenent bi daan na ci woor lu ëpp li muy woor ci weeru baraxlu wi ñu nekk moo tax ñi nga xam ne ragaluñu koor ah ñu góor góorlu ci ñi nga xam ne ragal nañ koor tamit ñu góorgóorlu mos si même bu dee benn fan walla ñaar parce que loolu tamit ci sunna yi la bokk fan yi dama gis ak sama benn xarit ma gis ko mu ngi tuñ yaa ngi wow mu niru ko sonn ma ne ko sawaay yow lan ngay woor nii rek lan ngay woor parce que man dama ko xamee moom day woor lundi ak jeudi dégg mais bi ma ko gisee keroog du bésu jeudi du bés du bésu lundi ma ne ko yow yaa ngi woor nii rek di sonn mu ne ma lenn rek laa si jublu pour roy yonent bi lenn kese laa si jublu muy roy yonent bi dégg nga wax ju ba mu waxee loolu nag loolu daw sama yaram mu ne ma jublu roy yonent bi rek laa si jublu effectivement roykati yonent bi dëgg-dëgg dañuy bari lu ñuy woor ci Shaabaan xam nga bokk na ci sunna nga woor ñetti fan ci weer wu nekk muy ayaamul biid waaye bii nag bokk ci bii moom loo mën ci woor rek wooral kon euh, hadis yi ci ñëw ak ngëneel yi ci ñëw moo tax ma ne woon faw rek ma ma jéem cee fàttali sama bopp fàttali sama mbokki jullit yi ku ko mën di ko woor nga woor ko dana baax lool ku mën di ko woor nga koy woor dina baax lool am na ñu ne liñ ci tere ñu woor ko rek ñaari fan la mooy ñaari fan yi sës ci weeru koor wi loolu moom bëgguñu ko bëgg nañ nga dagg ñaari fan ñu doog a dugg ci koor gi parce que koor gi weer wi yëpp doo ko woor donte na yonent bi sallallahu alayhi moom daf ko daan def wisaal da ko daan jokkale ak weeru koor léeg-léeg mu woor Shaabaan bi baraxlu yi ba muy jeex ba mu jeex takk rek mu dugg ci weeru koor direct waaye nag dañ ñoo digal ne boo koy woor woor si fukk ñaar fukki fan ak juróom wala fukki fan ak juróom wala une semaine bu koor gi desee ay fan daal nga arrêté nag doo ko préparé weeru koor kon loolu ngëneel la yoo xam ne yu jar di bàyyi xel la mooy weeru chaabaan ñu bari ci nit ñi dañ ciy sàggan waaye yonent bi nee na weer la woo xam ne dañ ciy gaaral jëfi jaam yépp ci seen kanam borom man dama bëgg ci weer wi nga xam ne ci la ñuy gaaral jëfi jaam yi bu ñuy gaaral seen jëf fekk ma man maa ngi woor kon loolu mooy illa bi waral nit ñu baax ñi di ci woor am na ñoo xam ne bi weer wi tàmbalee ba léegi ñu ngi koy woor te duñu bàyyi lu dul euh, li nga xam ne mooy weeru koor bi jege si na ñetti fan wala yu mel noonu kon ngëneel laa noonu ku ko mën a def na ko def beneen bi weer wi dafa am xadis bu ci ñëw boo xam ne bu jara jara jara bàyyi xel la mooy laylatu nisf laylatu nisf min chaabaan nisfu chaabaan nisfu chaabaan googu ah yonent bi sallallahu dafay wax ne yàlla de day sëpp xool waa àddina àddina lay xool maanaam weeru baraxlu wi su xaajee ca digg ba guddi googu suñu borom day sëpp waa àddina yépp jéggal leen ba mu des ñaar illa li mushrikin aw mushaaxin al mushrik mooy bokkaalekatu yàlla yàlla ne na kooku moom duma ko jéggal ci leylati nisf min ash-sha'ban moo tax duma ma dëñ di ko wax góor góorgóorlu di jàngale bokkaale mooy lan ak mboolem xeeti bokkaale yi ak ak ak sew-sew yi ci nekk parce que day yàq jëf tey bu ñu la toggaloon ñam bi gën a neex jël tuuti poson suuy ko ci rek ñam wa yàqu na jëf lu mu rëy rëy ci diine bu ci bokkaale amee tuuti rek jëf ja yàqu na yàlla du ko nangu moo tax nabiul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na bokkaale dafa sew ñu bëri dañ koy def sax te xamuñu ko wala ñu koy def te yëguñu ko moo tax pour nga bañ a def bokkaale te yëgoo ko mu wutal la ñaan ñaan googu moom la sama xarit bële daan wax El Hadj Mamor Mbeng sa canaba nee na mooy anti bokkaale anti bokkaale ñaan gi mooy anti bokkaale boo koy def doo bokkaale allahumma inni audu min an ushrika bika shay'an a'lamuhu allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu mooy yonent bi mooy ñaan de mooy yàlla maa ngi muslu ci yow ma bokkaaleek yow yàlla ma bokkaale la ak dara te fekk xam naa ne lii bokkaale la ma koy def yal nag ma ci musal tey am na nit ñuy def bokkaale mais boo leen waxee dañoo dañoo ñëg rek danoo ñëg waaw waaye ñoom xam nañ ne lii ñu nekk bokkaale la waaye dëgër bopp ak ak rëy rëylu ak ñëg moo tax ñu nekk ci yonent bi loolu lay muslu yàlla beneen bi wa audu bika mimma la aalamuhu allahumma inni audu bika min an ushrika bika shay'an aalamuhu wa astaghfiruka lima la aalamuhu maa ngi lay jéggalu ci bokkaale yi nga xam ne def naa ko te yëguma ko wala xawma woon ne sax lii bokkaale la yonent bi mooy ñaan ñaan gi tey rek la nit ñi woyofal mbirum bokkaale waaye bu njëkk moom diine nattukaay bi bokkaale la rek loo mën a def ak noo mën a mel soo amee pas-pas bu yàqu daanaka euh, yow defaguloo dara tey nag lu ne dinañ ko jox gëdd wax ci nañ ca war a waxee ba mu des bokkaale ak tawxiid dañ ko sàgganee liñ ko waroon jox ci leeral wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg dinañ gis ne des na laylati nisfu min ash-sha'ban yonent bi nee na ñëpp la yàlla di jéggal ba mu des ñaar ñii ñaar ñii mooy bokkaalekatu yàlla kon fexeel bul bokkaale yàlla ci sa pas fexeel bul bokkaale yàlla ci sa làmmiñ fexeel bul bokkaale yàlla ci sa xel fexeel bul bokkaale yàlla ci say jëf mboolem façon wu bokkaale yi na nga ci góorgóorlu mucc ci góor góorlu ba doo ko def boo boo ko daan def te xamoo ko tamit gaawal nga tuub ko parce que boo koy def day tax yow njëggal lu rëy li yàlla di wàccee ci asamaan ci bésu guddi laylat nisf min shaaban yow doo ci bokk loolu yal si yàlla musal beneen bi mooy aw mushaahin nit koo xam ne dafay noonoo ak bañante nit koo xam ne ci noonoo ak bañante ci la nekk loolu nag tey lu bari la ci nit ñi ñoo xam ne seen dund yépp ci xeex la tegu bëree bëree bu dul jeex xare rek te lépp taxu koo am solo maanaam dem ba nga xam ne danga bañ nit ki noonoo nit ki ba nga yëg ne yow kii sa noon la c'est grave bu fekkee nit ki yàlla natt na ko ba mu jàppee la noon yow bu ko jàppee noon jàppal ne jaam bu la yàlla nattoo la waaye tey mushaahin ashahna wal baghda dafa dafa dafa daj tey daanaka kenn mucc ci mbañante noonoo bañante cest boo xasee ba noonoo ko rek attan nga koo teg lu nekk wala lépp lu ko dal ci musiba rek yéene nga ko yéene nga ko ko nit nag bu yeggee ci niveau boobu ci dund kooku dundam daanaka lu doy doy waar la moo tax ñi nga xam ne am nañ rëq-rëq ak seen mbokk yi ak seen xarit yi nañu ko defar ci weeru Sha'bâne bi weeru juboo la ñu baree bari pour bokk ci ngëneel lii maanaam njëgal gi ci yàlla di wàcce moo tax bu weer wi xasaan dugg dañ daan juboo dañ daan juboo ki la tooñ nga jéggal ko ka nga tooñ nga dem jéggalu ko loolu mooy li nga xam ne moom lañ ñu jàngal ci weeru Shaaban noonoo gi nag tey bari na ci réew mi waa parce que am na loo xam ne ku ko teg nit rek noonam nga am na loo xam ne ku ko def nit rek noonam nga moo tax yi ñuy tegante mooy wane li nekk ci suñu xol dégg nga nit ki bu xol bi yàqoo kooku pour mu tooñ du nekk dara ci moom pour mu sos du nekk dara ci moom pour mu xeebaate du nekk dara ci moom pour mu pexe du nekk dara ci moom te loolu rek nga fiy dégg tey mooy sosalante fexelante nit kiy wax da koy wér ne li muy wax ay kàcc la di ko jëmale ci nit ni moom ci mbokkum jullitam waaye dara waralu ko lu dul noonoo rek lu dul noonoo rek léeg moo tax kilifa yi il faut que rek ñu am niveau yëkkatiku xam nit ñi fi ñuy waxee léeg-léeg da ngay gis nit wax wax wax wax wax ci nit boo defee analyse rek di nga xam ne kii da koo noonoo rek waaye li muy wax dëgg taxul njub taxul yéene ko jàmm taxul mais noonoo ko moo tax muy wax wax ju ñaaw ji ci moom dana ko sosal bu deful dara sax parce que noonoo baaxul noon moom boo defee benn da koy ëf def ko junni boo deful dara mu sosal la boo defee lu baax mu ne lu bon nga ci jublu xam nga loolu tamit àddina boobu àddina bu métti la àddina bu métti la àddina boo xam ne dañu bañante dañuy xeexante dañuy lorante ku nekk pare nga pour sacrifier sa mbokk te dara taxul nga koy def de lu dul àddina kese ñi yor melokaan boobu noonu yàlla du leen jéggal ci nisfu mina shaaban kon ñaari jikko yi nga xam ne moom la yonent bi wax ne ku ko melokaano yàlla du la du la jéggal ci guddi gu tedd googu fexeel bu ci nekk ci yow nga dënc dëñal ci bokkaale ba set wicc dëñal ci mbañeel ba set wicc nga xam ne dangay ngay yegg ca la saxaaba ba yeggoon ah euh, yonent bi ba mu toogee ñoom ne leen balaa yàgg tuuti nitu ajana dina dikk ñu ne tël ñu toog tuuti benn waay yegg si kenn foogewu ko ko woon beneen yoon yonent bi nee na balaa yàgg nitu àjjana dina ñëw même waa ji génnaat ñoom ñëpp ñu waaru am kenn ci saxaaba yi dem këram wut ay lay ba nekk ak moom ay fan bu guddee day gis waa ji bu julee gee rek tëdd na du fa nekk di def xiyaamu layli su bëccëg jotee waa ji du woor kooru naafi la te moom ñoom foogoon nañ ne comme yonent bi nee nitu àjjana la rek waa ji day fanaane julli ba bët set bëccëg bi du dog day woor waaye mu gis waa ji nit ku ordinaire dara deful dara lu extra extraordinaire ci jaamu yàlla ba mu fa amee ay fan ne ko maa ngi dem léegi nag da nettali ko li taxoon mu ñëw fa waa ji laaj waa ji lan lay def waa ji ne ko man daal gisuma lenn lu may def bu fekkee ne daal damay dem ajana xanaa mbaaxu yàlla la waaye man daal gisuma lenn lu ma defal yàlla lu ko julli di defalul gisuma ko waaw waaja ba muy dem mu ne ko xanaa lenn lenn daal xam naa ko moom mooy du ma nelaw benn guddi benn guddi duma nelaw lu dul wax naa yàlla ne yàlla képp ku ma tooñ ci xeetu yontu yàlla muhammad jéggal naa ko waaw lu ma nit def ci xeetu yonent bi yàlla yàlla boo ko ko jàppee jéggal naa ko baal naa ko yoreeluma kenn dara ku ma tooñ jéggal naa la seetal ma niveau boobu niveau boobu tey lu naqari jullit rek jullit a ko ko teg waaw lu naqari jullit ci àddina rek daanaka jullit moo ko ko teg boo xoolee bu njëkk jullit yi dañu daan dañu daan dañu daan sagalante di suturaalante di yërëmante di sàngante sutura waaye tey wax dëgg yàlla boo xoolee li am tey danga naan est-ce que ñun ba léegi sax ñu ngi ci diine ji li ñu santoon ci jël suñu noonoo yeen yenele ko ci noonu yàlla yi tey jullit ji ci seen biir moom la ñoom ñoo noonante ci seen biir euh, noonu lislaam bi day jël jullit bi dóor ko ci kaw jullit bi bu teyee mu ànd ak jullit bële xeex jullit bële bu ëllëgee mu bàyyi ko fa dem seeti keneen selon ci ay intérêt rek waaw bu teyee ñu ne salafi bi moo baax bu gannaaw suba ñu ne suufi bi moo baax bu gannaawaat suba ñu ne siit yi ñoo baax bu gannaawaat suba ñu ne sunnit bi ñoo baax bu beneen yoone ñu ne turc bee baax beneen bi ñu ne kirdu bee baax noonu lañ koy jàppee di dë jullit yi di rayante ci seen biir tubaab bi noonu yàlla bi toog di xool kon noonoo gi dafa war a dakk kenn bu la kenn yóbbu ngay noonoo sa mbokkum jullit jullit mën ngeen réeroo ah loolu moom boo foogee ne jullit yëpp dinañ bokk nu ñuy gisee da ngay nax sa bopp yàlla bëggeewu ko noonu te loolu du am dégg nga dañuy wutee gisin dañuy wutee gisin ba ilaa yawmi diin loolu day am waaye nag am na question yoo xam ne waruñ ci wuutee mooy kenn yàlla gi wéetal ko foofu waruñ fa wuutee dégg nga solidarité ak jullit yi waruñu fa wuutee waaye dem nag ba allié ak noonu yàlla di xeex jullit yi say mbokk loolu moom niveau la boo xam ne nit bi bu fa yeggee rek yegg na fu doy waar te tey loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy gis fu nekk moo tax yàlla yàlla nañu yàlla dabaatal ak yërmandeem mais lim ñu diggal ak la ñuy def moom wuute na trop kon jullit bu nekk na laabal xolom laabal xolam liwaay ji waxoon fattishu an qalbi fattishu an qalbi ñëw leen xotti sama xol xool ko wallahi du ngeen ci gis lan taraw gayral xubb mbëggeel rek ngeen di gis sama biir xol mbëggeel goo xam ne jullit yépp laa boole bëgg lan taraw gayral xubb waaw jullit yépp laa bëgg ku dul jullit ma yërëm la waaw alxubb wa rahma loolu tey moom la ñu soxla si biir jullit ñi ñoo am esprit de dépassement yërëmante dégg nga suturaalante euh, sagalante ku nekk jàppal sa moroom ay ngantam loolu mooy li am solo mais détails yu ndaw yi ñu koy ëf di ko ngandal di koy taawi di ko yaawi di ko xóotal ba nga xam ne boo moytu li muy def ci sunu jëmm diine ji mooy góomu robaale yàlla na ñu si yàlla musal jullit bu nekk na setal xolom laabal xolom xol bi laab euh, tey sa njaboot ki nga gën a yërëm mooy ka feebar feeg wérul doo am jàmm jullit bu mel naka sundudul noonu kooku dafa feebar dañ ko war a yërëm ak moom di naxanteek moom ba mu am tawatu pas-pas bi ko jàpp wér wala tawatu jikko bi ko jàpp wér loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg daan nañ dégg ba ñuy nekk xale sunu sëriñ si daan ñu jàngal waxu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah bu leen noonoo képp koo xam ne gis ngeen gémmiñ gi laa ilaha illallah di ci génn ak nu mu mën a mel bu leen ko jàppee noonu xoolal ma niveau boobu grandeur boobu tey booy xool fa mu toll woon ak wax jooju tey nga nat nga natt ko suñu vie ñun sëtam yi nii ñun doomi réewam jii nii tey ñi ñuy mel ci suñu biir lépp daanaka ci noono rek la basé wu te noonoo boo xam ne amul lu ko lu ko lu ko waral amu fi ñàkk waxtaan la wala ñàkk leerlu loolu rek moo ko jur mais bu ñu waxtaanee dañuy gindeeku dégg nga loolu moom tey wax jooju jàpp naa ne jullit bu nekk war nga ko réviser waat xool ko wala tuaadu bu leen noonoo man képp koo xam ne raaytum gis ngeen faahu gémmiñam yuxriju muy génne baatu laa ilaha illa kooku da ngeen di réeroo rek waaye du sa noon kooku mënatul doon sa noon te lu baree bari lu indi jafeñ-jafeñ yi ñàkk comprendre la mais lañ ko tuddee doonu ko wallahi nit ku teey am yéene bu rafet bu xoolee dina xam ne li mu tegoon yëf yi demewu ko ñàkk comprendre rek la xëy na li ñuy wax waxin yaa wuute mais li ñuy wax lenn li la rek kon yooyu yu jara bàyyi xel laylatu nisf min a shaaban ngëneel yooyu di ci wàcc yàlla nañu yàlla wàcceel sot jox ñu ci cër yi gën a kowe fexeel sa xol na laab bul nangu ku lay dugal ci noonoo ku lay dugal ci mbañeel ku lay dugal ci xeeb jullit wala xeex jullit bul dugg ci loolu la cee gañee bariwul yàggul bul ko nangu beneen bi ci boroom kër yi lañ koy jëmale mooy weer la woo xam ne buñ ci duggee jógee rek ci weeru koor wi lañuy tàbbi kon képp kuy njaboot war nga fàttali sa waa kër ña yoroon boru koor ci weeru koor wi ñu nekkoon bismillah bismillah bismillah waaw ah, ñu ngi la ziar waaw man de daa am lu mu boole laaj li nga wax sànq nee na bokkaal yàlla loolu laa bëggoon a xam mooy lan. waaw. la waaw. ñu la. waaw jërëjëf barakallahu jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw euh, bokkaale yàlla mooy nga wutal yàlla morom te moom moo la bind. bokkaale yàlla mooy ngay jaamu xërëm bokkaale yàlla mooy ngay jaamu leneen lu dul yàlla. bokkaale yàlla ngay yaakaar lu dul yàlla bokkaale yàlla ngay waat ci lu dul yàlla bokkaale yàlla ngay xettaliku ci leneen lu dul yàlla bokkaale yàlla mooy nga jël li yàlla moom nga jox ko mbindéef bari na bokkaale dafa am ay forme yu bari mën na nekk lu ñuy samp mën na nekk pas-pas mën na nekk système lépp lu nit di lu ne fii rek am na ñu ko jàppee yàlla waaye yow moom jullit bi dañ laa digal nga jaamu yàlla moom dong wéetal ko te def ko ni nga xam ne noonu la ko yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle kon su ko defee kilifa yi. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi ziar ngi delloo ziar. alhamdulilah ñu ñaan bu baax a baax suñu borom yokk xam-xam bi. amin ñu bokk ko. bàyyi Serigne Touba suñu borom dëgg la taxawaay. allahumma amin ya rab. amin yaa rabbi. alhamdulilah kontaan nañu wér-wér ci waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yéen ñuy tegaat ci yoon bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw ndaw moom lii rek moom mu gën ci moom. dëgg la dëgg la. waaw wax dëgg yàlla kontaan na yàlla am na solo trop sax. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. di ñaan rek ngeen defee ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa. jërëjëf. baax kontaan nañu mbokk moomu si kàddu yu am solo yooyu nga xam ne euh, def na ko macha allah léegi su ko defee euh, kilifa yi nañu fàttali njaboot gi ñi yoroon ay bori koor nañu gaaw fay ko parce que boo yoree bor fayoo ko ba weeru koor dugg si waat loolu kafaara la lay indil beneen difficulté la lay indil kon nga taxawu leen fàttali leen soxna yeeg doom yi. Euh, parce que jigéen moom la plupart waru kër wu nekk dina ci am bor waaw parce que day am fan yi nga xam ne mën na ko gis baax ak yooyu yooyu da ko war a fay ak yeneen yi nga xam ne feebar laak ak fan yi nga xam ne danga ko leboon ci tukkeeg yooyu yëpp war nañ ko fàttaliwaat njaboot gi ñu góor góorgóorlu jëm koo fay moo gën ñu koy sàgganee ba weeru koor wi di dugg si waat di indi beneen jafeñ-jafeñ bismillah allo bismillah asalaamaaleykum oustaz. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñoo ngi ziyaare de. waaw yal na yàlla nangu. maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax sa émission bi neex na trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di ziyaare oustaz Dame Ndiaye. dana ko dégg incha allah. seen diyo bi keroog neex na. ak oustaz Aboubacry Faye. waaw dëgg la dëgg la dëgg la imaam Aboubacry. <laughs> waaw seen waxtaan bi keroog neex na. dëgg la dëgg la dëgg la. kontaan naa bu baax oustaz damay déglu say waxtaan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di ziyaare Baye Laay. dëgg la. Baye Laye Gueye. waaw almufassir. waaw kañ kontaan naa. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi na yàlla nangu amiin yaa rabbi nangu yëpp amiin jërëjëf kontaan nañu soxna si. waa kañ jërëjëf yal yàlla barkeel ya rabbal alamin jërëjëf soxna si si kàddu yu rafet yooyu nga jëmale si suñu kilifa yu tedd yooyu noonu eh, imaam Ahmad Dam ak eh, suñu doomu ndey Cheikh eh, Baye Abdallah borom tafsir ba ak borom masjidul ijaaba ca madinatul mu munawwara ñu ngi koy ziar bu baax Cheikh Abdallah di ziare tamit euh, waa Thiès kon su ko defee loolu la mooy euh, Chaban bi nañ fexe ñu fay boor yi dégg nga parce que bor la danga koy fay waaw su ko defee loolu nga jublu ci rek boo ko mënee fay gaaw ba pare def quelque jours pour naafi la wooru naafi la du wàññi dara Euh, xam nga woor benn bés te yàlla tax yonent yàlla muhammad li ci wax mooy daf ne man saama lillahi yowman bismillah man saama lillahi yowman baacada allahu baynahu wa bayna annaari sabciina képp ku wooral yàlla benn bés waxuma weeru koor de wooru la nga wooral yàlla benn bés def ko rek pour jaamu yàlla yonent bi ne na yàlla dina soril sa digganteeg safara juróom-ñaar fukki at maanaam li la safara sore bu ko mbindeef doon dox juróom-ñaar fukki at dina dox te du yegg kon loolu ñaare boo gisee nit ñu baax ñi dëkk ci woor ah xadis yu mel ni moo tax nga ne li yonent bi wax ci ci ci koor moo rëy bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah alamin noo ngi bu wér de ñu ngi delloo ziar waaw nun day daa am lun doon laajte tuuti maanaam bokkul ci thème bi sax waaye dañuy leerlu rek waaw bismillah maanaam euh, euh, nit ku am doom bu feebar doom bu xelam wàññeeku waaw dañu doon laaj maanaam vraiment kooku lu ko yàlla dig ci doom bu wàññeeku boobu ndeysaan vraiment mu jàpp ci di ko teetee ba yàlla dogal mu dal doon mag mhm. yàlla dogal mu génn àdduna maanaam kooku lu yàlla dig ci lu ko yàlla dig ci doom jooju est-ce que euh, sëriñ bi li nga wax am na solo euh, loolu moom li ci nekk dafa bari yoo xam ne bu ci nekk rek tiyaabo boppam la jullit bu taxaw mbokkum jullitam mu nekk ci jamono jafeñ-jafeñ tiyaabo la jullit bu taxawu doomam njabootu boppam nga yar ko tiyaabo la waaye tamit jullit bu taxawu ku feebar parce que nit ku feebar ngay nekk ak moom di ko taxaw di ko jàppale tiyaabo ji kenn xamul nu mu toll rawatina nag boo xamee ne xel mi nekkatu fa jaamu yàlla ñaare ni mu gën a méttee rek li ngay tegoo ni mu gën a diisee ci yow gën a métti noonu ngay gën di baree tiyaabo kon jàpp naa ne loolu taxawaay bu rafet boobu kooku def si njabootam boobu xel mi wàññeeku mu nekk ak moom taxawu ko ba mu wuy ji boroomam laa shakka tiyaabu ju baree baree baree bari moo ci moo ci aju te incha allah bari na koo xam ne ci àddina la ñàkk xel fekk yowmal xiyaamati du fa ñàkk xel mën na am ëllëg boo dajeeg moom moo lay teeru mën na am ëllëg lii tax nga dugg aljanna sax yow moom mooy doon sabab bi te yàlla na ko yàlla defee loolu maanaam wéradi moom àddina la yem ku dee wér bismillah waaw allo waay bismillah salaamaaleykum eh, waaw ah, maa ngi yow la kan man la Babacar Diouf Ziguinchor Babacar na nga def maa ngi sant alhamdulilah ana waa Ziguinchor mbaa ñu ngi si jàmm. ñëpp a ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm xanaa dina gën a ñaanal rek. jërëjëf yal na yàlla nangu. yàlla yàlla suñu borom fay la sa xol. ñu bokk ko yaa rab. li nga li nga taxawal lislaam yàlla na ko yàlla fay. amin ñu bokk ko. képp kuy wax xaala laaw xaala rasul. Ah. yàlla suñu borom aar la. amin aar sa njaboot. amin ndax jamono bi lislaam. Hmm. aar ko yo aar ko jafe na trop. dëgg la. waaye bàyyi nañ nag dañ leen bàyyi yàlla suñu borom moo leen di aal. dëgg la dëgg la. képp kuy wax képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah. Eh, ñaanal ñu leen. yàlla am. Mhm. yàlla na jàmm yàgg. amiin yaa yàlla na leen yàlla jàmmal. amiin yaa rabbi. ndax jàmm ci la jaamu yàlla xëy. amiin. ndeysaan sëñ Babacar eh, kàddu yu am solo yooyu na yàlla nangu ñaan yëpp. waa Ziguinchor ñu ngi leen di nuyu di leen ziar foofu moom suñu ay mbokk dong dong ñoo fa nekk ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax kon euh, suñu mbokk moom nga xam ne doomam jooju euh, taxawu na ko ba jébbal ko boroomam yal na yàlla nangu lépp waaye wéradi moom ak xel mu manqué fii la yem àddina àllaaxira kenn du fa dof ñëpp dañuy nekk dañuy dañuy nekk nit te bu boobaa nag. taxaw yi nga doon def di nga ko gis incha allah bismillah bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu al amin ñu ngi ziyaara waa kooku man maa ngi tudd Malick Dem Malick Dem waaw Dem Dem Dem Dem fooy woote man maa ngi woote Sicap Mbao Sicap Mbao ana waa Sicap ñu ngi ci jàmm alhamdulilah naka waa gox ba yëpp alhamdulilah ni ngi si jàmm ñoom ñëpp. bisimilah Malick. vraiment kontaan nañ sa bu baax. jërëjëf jërëjëf Malick. ndaxte ñu ngi si xam-xam bu baax sax. alhamdulilah. te ñu lay ñaanal. dëgg yal na yàlla yokk fan. amiin yaa rabbi. di jaay Seydou Moussa. al amin bi nag yal na la yal na la wuyu. amiin. parce que al amin am na lu mu lu bëri. dëgg la. yéen ñu ko gën a xam nag ñun xamuñu si dara. <laughs> ndeysaan. wallaahi yal ko yàlla def. allahumma amin ya rab. Cheikh Tidiane Sy Al Amine nag ñu ngi koy ñu ngi bu baax mbokk yi. dëgg la. di jaay Seydou Moussa. na yàlla nangu ya rab. amin amin jërëjëf dem. jërëjëf kontaan naa bu baax. waa kenn jazaakumullahu xayran. loolu am na solo nit ñi dugg tamit léeg-léeg wax seen yëg-yëg du ci wàññi dara kon su ko defee euh, beneen point bi nga xam ne nag euh, ci Chaabaan bi tamit dina gën a am solo mooy ñu gaaw nafaraat alquranul karim parce que ñu bari ci jullit ñi dañuy soxla alquran ci koor gi ñi dañuy naafilaa kaamil dégg nga ñii naafila yi daal day bari ci koor gi ñi nga xam ne dañuy faral di naafilaa naafila alquran tamit ñu gaaw fexe réviser waat jàngaat kaamil bi euh, surtout xale yi nga xam ne lu ci bëree bëri naafila yi ñoo koy def ci jàkka yi nañ defaat muraajaa parce que alxuraan aussi dafa gaaw a rëcc moo tax saa su nekk rek da ngay da koy jàng weeru Shaabaan bi bu mosaana teru salafu saalix dañ duñ si géeti foo leen fekk rek ñu ngi alxuraan ñu ngi jàng alxuraan parce que dañ koy waajalee weeru koor parce que weeru koor wàccee ci alxuraan dafa ëpp doole nga wàccee ko Euh, ci leneen beneen weer wu dul woowu bismillah bismillah salaamaaleykum aleykum salaam yaa ngi ci émission Al Amin ah, <laughs> waaw bisimilah. bisimilah bisimilah. waa xam naa kooku dafa dugg te yëgul ne mu ngi ci biir euh, waaye rek ñu jàll ci kanam incha allah kon ñi nga xam ne ay xuffaas lañu euh, weer wi weeru muraajaa la jàngaat salafu saalih dañ daan jàng lu baree bari ci alquran ci chaabaan pour mu gën a mokk pour mu gën a rattax parce que weeru koor moom kenn du siggi ci alquran bismillah asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ah yaa yaa Seydi. kooku kan la. waaw man la sa benn soppe Mamadou Medor. Mamadou Medor. waaw kontaan lool ci émission bi. ah Mamadou Medor noo def. ah sant bu baax sant yàlla mi alhamdulilahi rabil alamin mbaa bii moom wax sa xalaat la wala lan la. <laughs> ah kontaan ci émission bi rek sant naa yàlla bu ma jokkoo ak yow. alhamdulilah ma ne bii moom wax sa xalaat la wala. <laughs> <laughs> waaw heure moom musu musuma ko retard moom heure bi moom. <laughs> parce que dama koy teewlu. ak mercredi bi rédaction bi yëpp. jërëjëf Mamadou. nooyi du ma ko def man saa bu ma la gisee du ma nooyi damay toog déglu. ndeysaan yal na yàlla nangu Mamadou. ndax euh, dafa am moom moo ñu ci indi moo ñu dëgg la jërëjëf Mamadou. ndax sunu borom mu ne wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. dëgg la Mamadou. kon nag dañu war a nangu ñu jàmm ko dañu ko war a nangu. jërëjëf jërëjëf. ndax euh, wax dëgg yàlla euh, xam-xam moom dafa am solo fàttalante dafa am solo. dëgg la. ndax li ngay def nii moom daal dama san lool. ñu mel ni yow daal moom macha allah bëggoon naa daal mu gën a bëri ci dëkk bi ñu mel ni yow. ndeysaan jërëjëf. moo tax man 2 dama kontaan ci ñoom daal. jërëjëf Mamadou. ndax ñoom télé bi mi ngi am na waaye ñoom diine yi ñoom dañ ko ci a yaatal daal. dëgg la dëgg la dëgg la. ci daal. dëgg la euh, dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ndax islam moom li nga fàttalante jaamu yàlla lu am solo ndax. waaw waaw waaw moo gën a melax moo gën ñaw. dëgg la. daa dunda ba mu sosoo ba léegi si moom aadama ba léegi kenn jàllul. dëgg la. ah kon war nañ jaamu yàlla bu baax a baax. jërëjëf Mamadou dañu nekk ci mujj ci mm-hmm. yàlla rek moo am solo. wallaay dëgg la. kontaan naa lool lool jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mamadou kontaan nañu kontaan nañu si dugg boobu noonu suñu euh, mbokk moomu Mamadou Medor moom ñaare kuy déglu rajo yi rek xam nga ko man moom wax dëgg yàlla yàgg naa ko dégg trop mais ba léegi yàlla dogalul ma gisanteeg moom. Euh, waaye waxam yi vraiment wax yu ama am solo la euh, kon tamit ñu ñaan yàlla rek yàlla nangul ñu kër gi tamit comme ni mu ko waxee euh, ñu dooleel lislaam émission diine yi gën a am doole incha allah xam naa ne jullit yëpp ñu ngi xaar sax du yàgg xëy na incha allah seen seen seen seen télé boobu di Al Amine TV dana dana dana daj àddina ci kàttanu yàlla yooyu yëpp euh, ci mbaaxu yàlla la émission bi dana mujj nekk télé bu soobee yàlla bismillah bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ngi nangu ziar yal yàlla nangu yàlla na la yàlla yokk mais xam-xam bi yàlla ko yàlla yokk amin yaa rabbi fooy wootee yoof laayeen yoof laayeen naka waa yoof ñu ngi fi ñëpp bi. laay maxtaar laay bismillah. kontaan rek dañuy doon li ñu yëpp ñun nit wax nañ ko. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci soññe yeeg. jërëjëf daal vraiment yow dégg yow. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. allahuma amin ya amin ya amin ya di nuyu waa Yoff yëpp vraiment foofu sunuy xarit ak sunuy soppee dong dong ñoo fa nekk di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla barkeel yàlla dooleel euh, vraiment foofu moom la ñu fa am si soppee sax munuñu ko lim bu ñu ko doon lim fii émission bi du jeex waaw yal yàlla nangu lépp ak ñaan yëpp yàlla yàlla barkeel ko euh, sunu xarit euh, Seydina Euh, bi nga xamante ne ni surtout sëñ Sakhir Gaye la al alimul allaama ak oustaz euh, euh, al adib bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu alamin noo ngi ziar bu wér de waaw yow la kan man Mamadou Ndaw lañ ma wax ndaw ndaw na ngeen def ndaw ndaw bismillah ndaw noo ngi kontaan ci émission bi yan yàlla kontaan noo ngi leen di ziar bu wér. yal na yàlla nangu yaa rab. nun nag yàlla dogal na vraiment dañoo fi amoon jafe-jafe tuuti nattu bu xaw a yemaay alhamdulilah loolu la ko mën a tuddee. waaw. maanaam liin doon wax mooy sama benn doom moo réer. waaw. comme ni ma ko doon waxee vraiment ndeysaan xel mi nag daa xaw a manqué tuuti. waaw. yàlla mi dara tawar dool nag wax dëgg vraiment ndeysaan noo ngi wër plus de ñeenti weer léegi wax dëgg waaye yàlla dogalagul gis noo ngi ciy sàkku ñaan. ndeysaan ndeysaan. yàlla dogal na it vraiment dëgg-dëgg yaayam bëggoon naa vraiment ngeen sànni ko ay ay ay ay ay ñaan ñaani ñaani muñ loo rek. ñaani mm. muñ loo rek ndax métti na. dëgg la. ñaani muñ ñaani muñ rek vraiment ndax métti na ndax métti na wax dëgg vraiment gën a yaatal ba nu ba nu déggee waa ji wax ci affaire maanaam doom bu doom bu feebar ndeysaan vraiment ñaan yi ngeen ci wax ak mm. digg yi ko ci yàlla digg dëgg la dëgg la ndeysaan loolu rek lañ bëgg ngeen gën ci yaatal tuuti waaw bu soobee yàlla dëgg la jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla dëgg la dëgg la jërëjëf émission gën a yaatu amin amin yaa rabbi yàlla may nu xeli dégg amin yaa rabbi ak topp amin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, yàlla mi nga xam ne lu feeñ moo ko feeñal yal yàlla feeñal xale boobu nga xam ne dafa réer te xel mi naqari ci diir bu xaw a yàgg bi yépp waaye tamit yàlla moom lu mu lu mu feeñal dina feeñ ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam gi yal yàlla feeñal ko nit ko ba mu delsi ci seeni loxo ci jàmm ak salaam yomb na yàlla yal na ko yàlla def kon su ko defee euh, mu mel ni li ñu amoon ci waxtu mu ngi jeex waaye li ñuy tënkee daal mooy euh, weeru ko weeru Sha'bâne bi lu ci waay mën a woor nga woor ko beneen bi ku ci meroo woon ak nit jubóol ak moom ku ci yoreeloon nit dara ci sa xol gaawal rek nga nga nga nga nga nga dindi ko waaw dama dama dama am benn xarit boo xam ne nit ku baax la euh, nit ku baax a baax sax may def émission wax ci jullit ni mu war a juboo nit warul meroog nit ñetti fan yonent bi da koo tere ndeysaan fekk moom am na benn euh, wëllëreem boo xam ne dañoo meroo woon bañ ba ku nekk foog ne rek bàyyi nga sa moroom bi mu déggee wax jooju rek ci saa si xolam tooy mu jël téléphone am woo waa ji daal di jàmm sant moom jubook moom bi mu jotee waa ji sax dafa tiit bi ma gisee nag mu nettali ma loolu waaw te kooku boroom xam-xam bu rëy la mais léeg-léeg nit day fàtte ki ba nettali lii boroom xam-xam la ilimaan la kilifa diine la waaye doomu aadama day fàtte bari na ku mere nit téye sa bopp fekk rek waxu yonent bi moom moo yegseegul ci yow wala da koo xamoon fàtte ko kon fàttaliwante rek la jàpp naa ne incha allah wax ji dina dugg ci nopp yoo xam ne yu yàlla barkeel la ku nekk ka nga amoon ak moom problème nga def ko jubook moom te yàlla tax parce que day tax yàlla jéggal la day tax yàlla dugal la ci yërmandeem beneen bi njàngum alxuraan bi ñu baril ko ci euh, dégg nga maam ci chaabaan bi nafaraat alxuraan ndax bu weeru koor wi ñëwee naafila yi gën a yomb surtout ñi nga xam dañuy naafila kaamil day yomb incha allah kon mbokk yi loolu moo nekkoon tey seen émission Al Amine waaye mënuma jeexal nag tey émission bi lu dul damay nuyu nag sama waa dëkk bopp bële dagg beneen drame yëpp maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu di nuyu ilimaan ji Cheikh Mouhamadul Bachir di nuyu borom dëkk bi suñu wayjur sëñ Ousseynou Dramé di nuyu tamit suñu mag suñu sëriñ sëriñ Modou Dramé ak Cheikh Mouhamadul Kabir Dramé ak sama doomu ndey sama xarit Cheikh Ibrahima Dramé di ñaan yàlla yàlla maye tawféex maye wér maye barke di nuyu waa Saalum yëpp di nuyu waa réew mi yëpp di ñaan yàlla mu yeggali ñoog jàmm ci euh, weeru koor wi yàlla may ñu ñu màng ay xéewal ci weeru Shaabaan bi te weeru koor wi yàlla may ñu ñu fekkee ko ak jàmm te yàlla suñu borom war sa gël ñu xéewal yi ci nekk yëpp ñu am ko mu jural réew mi barke ak jàmm ak tawfiq jàmm ja yàlla wax ci suratul qadri yal na ko yàlla sotti ci réew mi Mm, xol yi nekk benn ñu waxtaan juboo ñu nekk ci natt yëpp yàlla suñu borom génnee leen si subhanahu wa taala xanaa di la rek ne incha allah ñu ngi waaj pour dem daarul moxti ci màggal gi bés boobu nga xam ne bésu jullit yi la rawatina daaru nga xam ne jullit yëpp daanaka mën nga wax ne du ñu tardé màggal googu ndax eh, waxtaan yu am solo yi nga xam ne jullit yi dinañ ko fa amal ci façon yu bari waaye rawatina nag bés bi nga xam ne daanaka këru diine yi olama imaam yi penseuru réew mi yëpp dinañ ko dajee fële ci kër Baye Seex Xadi ci njiitu sëriñ Abdou Mbàkke euh, ren imaam Ahmad Dame Ndiaye bii moom moo war a def conférence bi ak ñoom sëriñ Mbàkke Silla ñoom professeur Mouhamadou Si Tunkara ak penseurs yu bëri professeurs yu baree baree baree bëri dinañ fekkee bés boobu ñu waxtaanee fa loo xam ne dina dina amal njëriñ réew mi ñoom Cheikh jaaji jaaji taal ak euh, suñu baay Cheikh euh, aw Balla Gueye fële euh, aalim bu mag boobu ñooñ ñëpp dinañ fa teew dégg nga nga xam ne mbooleem kuréeli diine yi dinañ fekkee bés boobu waxtaan fa loo xam ne day amal njëriñ réew mi amal njëriñ diine ji ñu ñaan yàlla yal na yàlla def tawfiq nañ ci daan amee ndam nu ko raw yàlla defal ko ci sëñ Abdou ak rakkam yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam di ko defal di def bés boobu ci ndigalu sëñ Abbas Mbacke ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix nit ñi def si jàmm ñibbisi si jàmm incha allah kon ñun ñëpp ila daaril mooti li natalaqa ataaya min al mooti al jalil incha allah mu nekkoon seen émission al amin ngeen àndoon si seen mbokk seen xarit alhaaj Mouhammad al amin Dramé ni minni alxub wa duaa dawman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.